salaamaaleykum suñu mbokku internet mi TV ñi nga mat kon ma leen dal fi suñu plateau sport tey nag yaakaar naa ni fetto la quoi ndax tay ki nga xamante ne mooy Italie tey gagné mo gagné euro bi dembo gis leen ki nga xamante ne Messi mom tay mo gagné li di Copa bi man beu nak yaakar na ni tay ma gagné parce que suñu xolé par rapport à pronostic yi ñu joxé woon waxoon na la ki nga xamante ne Argentine tay gagné un but de carte ki nga xamante ne di Italie. day day Basiir yi yow ban jàngat mën am ci ci ci ci ci ci dafa daa fa passé. waaw Alaaji effectivement waxoon nga ko. Mhm. waxoon nga ko waxoon nga ma ne Argentine dina gagné Brésil. Mhm. te un but d'écart la koy gagné. waxoon nga ma tamit Italie dina gagné Angleterre pour gagné un but d'écart si tiro bi la koy gagné. Mhm. mun naa ne lépp li nga wax. tey moom lañ gis si final bi. ndax final boo xoolee dafa doon final bu neex moo tax bettu woon kenn. boo xoolee. léegi avant ñu dem ci euh, euro bi dañu dama dama mën ñu taxaw ci COPPA bi parce que suñu xoolee Messi euh, gay na COPPA bi mais mën nañu wax ni football moom ndam football moom ndam parce que lu lu lu ñu ko yëngu woon la quoi euh, ban kàddu noonu. waaw dafa doon fierté boo xoolee adduna bi yëpp ndax Messi depuis 2007 ba léegi mi ngi si équipe Argentine bi di xaar COPPA boobu ba léegi mënul ñëw ba démb xam na si la yàlla def COPPA bi ñëw kon lu ma doon wax rek. Mhm. après dafa jotul woon quoi comme waa Argentine ñu demoon wax naan Messi li muy def deg Barça. côté mhm. Argentine may leen heure bi moo jotagul ndax lu mu jël Barça yi heure bu jot tam heure bi dafa jot mu jël ko mais heure bi amaana démb la jotoon moo tax mu jël Copa ñu koy féliciter tamit. Mhm. xam nga Messi moom grand joueur la. am loo xam ne moom warul football bàyyi ko te du ko jël. Mhm. waaw lu ñu ñu ko yéene woon la parce que soo xool Mbappé loolu doomu moo ci desoon kon Euh, COPA bi kon tey suñu xoolee tamit ci kàddu Ballon d'Or bi kon tey Ballon d'Or bi suñu xoolee bu njëkk ñu doon wax Lewandowski Lewandowski mais instant yi ñu toll gis nañu Messi gën na ko jege Lewandowski. non boo xoolee instant yi actuellement Messi moo nekk ci kaw. Mhm. ndax kiy noté rek Messi ngay noté. Mhm. ndax boo xoolee dafa jël COPA te boo xoolee Lewandowski buñ demoon wax. bideewul si euro bi. Mm-hmm. boo xoolee la nga xam ne si euro bi deux bi la si am. Mm-hmm. te équipe bi soriwul. boo xoolee ñu ngi doon xaar daal meilleur euro si Lewandowski mais gisuñu ko. Mm-hmm. par rapport ak Messi. Messi boo xoolee Copa bi dafa war ne carrément moom mooy leader Argentine. xam nga tamit loo xam ne peuple bi ñëpp ko bëggoon xam nga mu andi leen ko dafa doon lu jafe difficile quoi bu muy débuté dafa affaire dafa difficile lool mais dafa dem benn moment mu xam ne fii kat xam nga benn pas mooy des nga jël. xam nga trophée bi. bu hmm. fexe ba lijjanti ko di ko féliciter Messi c'est un grand joueur. kon mën bi Messi a jege bi parce nañ ba euh, la woon mais tey kon gëm nañ ni Messi tegaat ndax contentement bi bu mu bu mu am la à travers condition boo xoolee si loolu laa bëggoon ñëwaat ne Messi. si période COPA boo xoolee waa ak waa kii di Bassa dañ ko contacté woon mu leen instant yii man dama concentré si COPA lépp pour bëgg andil COPA bi waa Argentine. mais instant yii mm-hmm. moment bii nii xam nga jël na COPA xam nga ak benn fierté bi te xam nga Miss moom ko xam-xam ne doomu Bassa la. Mm-hmm. mun naa ne instant yii peut-être gën dinaa doon dina yokk contrat. mais tey suñu jugee foofu noonu dañuy ñëw li nga xamante ne mooy Europe bi tey ñu def finale bi. léegi suñu final bi final bi nga xamante nii ba bat bi tawee gis nañ ni bi Angleterre moo ko yore woon mais tey suñu gisee li nga xamante ne nii Italie def na ko man mun naa jàpp ni problème coaching la côté Angleterre yow wala yow loolu yow war gis nga ci ci ci final bi tey. waaw boo xoolee mën naa ne côté hmm. lu gën a jafe la am tey si début final bi. Hmm. ndax dañoo match dafa commencé mu dugal. Mm. te loolu yombul si final. nga jiital score bi xam nga ba benn moment bi nga mu ne ba léegi nii deuxième mi-temps tam italien boo xoolee ñoo dal si kaw anglais mais gis naa ni tamit problème changement am na si. Mm. Mm. ndax boo xoolee temps bi bu ñu waaye jeex ku bi ku si mel ni Anderson leader la man pour man waru woon génn. ndax euh, Anderson tireur la ndax boo ko seetaanee Liverpool. même milieu bu dóorul moom day dóor tireur la quoi alors que mun naa ne loolu mu andi conséquence ba xam nga mu andi booy nday Sancho ku si mel ni Rashford xam nga booyee mun naa ne amaguñ expérience si wàllum final fu mu tolloo moom quoi foofu leader yi mun naa ne ñëpp sens. pour daal dóoree dugal. suñu xoolee depuis le début presque li mu doon wax par rapport ak Angleterre mu que maa ngi ko mu ngi joué parce que même su dee ba euh, mu ngi koon proposé danaan taxaw biir kanam kër yi kër yi am contre exploité te parce que tey gis nañ ko gis nañ ko bi moo teewoon match bi mais après bu mu dugalee benn la soo xoolee presque benn 18 mois moo ci des ñu dem ci coupe du monde bi kon ça veut dire que ak euh, comme jàpp jàpp nañu li nga xam ne Angleterre moo recherché ah, bi ma gis. Mhm. gëwma dina conserver seen coach bi hmm. ndax boo xoolee coach bi malgré que def na ay résultats ndax ku dem final coupe d'Europe hmm. loolu yombul hmm. boo xoolee avant nag avant gars yi xaaruñu ko woon foofu mu dem xam nga ba atteindre benn objectif fii moom tamit jàmbaar la quoi di ko wax di courage coach Angleterre ak équipe Angleterre bi yëpp mais instant gis naa tam benn instant Angleterre kon ñoo équipe jeune la équipe jeune la ah. boo xoolee pourquoi pas ñu ko jox ci Stephen ah. mun na nekk wala mm-hmm. Lampard mm-hmm. ndax ñooñu mun naa ne ñoom peut-être xale yi mm-hmm. xale yi comme dëkk bi ñu ngi bëggee ñu bëggee xale yi di jouer peut-être mun naa ne ñaar poseyo bu ñu ñëwee kat mun nañ may xale yi confiance ba tey jii Angleterre bu demee coupe bi moom du bett kenn mais tey dama bëggoon ñu taxaw ci nga xamante ne moo di défense su Italie parce que tey soo xoolee défense Italie ñi ko composé ay mag lañ soo gisee lu tax moom ñu taxaw foofu noonu ñun dañoo nekk dëkk boo xamante ni muy Sénégal da ngay am benn kan ñaari kan ñu ne ah saa mag la dañ ko yóbbu rek te tamit soo xoolee tey li nga moo di euro bi euh, Italie lu ko gën a jox mooy paire ak ak ak euh, paire ak sam boobu noonu lan nga boo xoolee football mun naa ne mag dafa bokk si équipe. Hmm. na football dëgg la dañoo ne football xale. Hmm. mais tamit mag baax na si équipe. Hmm. mais du mag bi. ku kooku da nga bëgg ko libérer si équipe. Mm. du loolu na Italie boo xoolee kii di Bonucci ak Giorgio Chiellini. Mm. ñoom boo xoolee ñoom ñaar dañoo yàgg peeroo. gérer mm. lu nekk gérer nañ coupe du monde gérer nañ coupe d'Europe xam nga ba tey jii nii yow man sax man mii di wax ak yow sax man supporter italien laa mais man bu ma ñëwee daal ci Europe man damaa yaakaar ne Chiellini du gérer. Bonucci Bonucci man gisoon naa dina gérer mais Chiellini pour man. du gérer Chiellini mu ngi boo xoolee instant yii coupe du monde bii ñuy jëm si peut-être mën na ko bañ si. waaw parce que suñu déglu réew tey match ñu ngi laal laal ndax coupe du monde bi day ñëw ou mais ma sait jamais. ndax boo xoolee mag la mais mag dañ koy cër. Mm-hmm. ndax mag tey boo ko joxee cër si kii bi rek mu boo xoolee tey cëlin ni mu musée match bi mm-hmm. ak bonus yi da ngay xam ne mag dafa baax si kii daal Sénégal la war si bàyyi xel. ndax boo xoolee ku mel ni xam nga. ñun comme cas Karambour ñu ngi ko teelee libéré si équipe mm-hmm. nationale bi yoon te Karambour boo xool mm-hmm. ñu bëri mm-hmm. seen ci ne na si équipe waaye gis ngeen du ko suñu consultant bii di fi nga xamante ne moom la Argentine toll ak ne moom ne toll fa te tey ñu ñëw à chaque fois compétition soo fay dem daam noo fay demee kon nañ bàyyi xel ci loolu noonu bay sa dëneen moom waaw di wax félicitation italien di encourager anglais yi doon sport nii la ñaari ndam ñooy dugg mais benn mooy génn di leen jox di tey si benn émission. waa li ngeen suñu mbokku internet bi TV comme ni koy faral di defee chaque jour di leen jox di daje benn yoon suñu plateau de sport jaajëf wasalaam.